far waay lingeer oo wuleen ñaani mbay yee joo wulee ginaago yoo yee yoo suba ma fatim gone brem jaimar dergen ma fatim gone brem jaimar jam jarum ci jaaji ma sama ndene fal yaay ndongolo farway lingero wow, wule ñaani mbay ye jamuri jo wuleegi naago yoo yee yoo jëm vraiment Alioune Fall la ñuy woowee sa baay Maguette Ndiaye la ñuy woowee sa yaay jë ay waay ku jë sumaare dinaa la wañi di la joobee dinaa la lëmb lëmbee dina la doxantoo sama yaay dinaa la way farwaay li ngeero oh, waaw yee jamuri jo wule gëy naa yee waaw loolu maa ko def ci sama yaay ji. nee naa leen lu neex rek a neex ba tax na tey amaana su doxalee woon neneen wala mu mel neneen ci moom tey du fi yëkkati kàddu yu rafet yi woy ko ci woyam bu neex bi macha allah ba tax na nee naa leen baax rek a am solo baax rek a baax comme mère Khoudia témoignage yi comme ni ngeen ko déggee rek wax ji benn la kàddu gi benn la ci lu ngeen gis ak lu ngeen gisul macha allah kon sëñ bi sa dernier mot la. waaw xanaa di santaat waa Louga bu baax a baax di ñaanaat jàmm ci réew mi di ñaan suñu borom. dàqal ñu mbas mi nga xamante si lëjël nañ ñëpp sonal nañ ñëpp fàtt nañu waaw sonal nañu trop di ziar waa kër gi yëpp di ko dale ci suñu yaay bu baax ji ci kër gi muy na mère si la ak suñu papa Badara Ndiaye Ndiaye Talla Bakar Koddu kenn demul mu des ndax bu ñu ñemee rek li olof naan ku ñeme dañ laa deey gis na nit ñu taxawoo bu baax a baax gis ñu tamit nim ñu jàppalee bu baax a baax a baax ñu ngi koy ñaanal suñu borom guddal aw fanam wéral ay cëram ba li njabot gi yene ci mom ndax mom paré na ci njabot gi njabot ge ko deseel kon ñi ngi ñaan suñu borom bayiko fi ba li njabot gi mebet ci mom yépp ñu def ko ñi ngi sant bu baax di sant taawu kër gi tamit ibba Ndiaye Baye magat Ndiassé momodou ñoom ñëpp ñi ngi leen di ziar ñoom ñëpp leen jox seen waccu way mer ko Khoudia nak mom dañuy wax walu Louga rek di leen talal loxo ñu jappalel ñuko suñu yaay ju baax jooju ñu ngi koy ñaanal baax suñu borom defal ko jamm jàmm jërëjëf. ñi ngi lay jaajëfal kàddu yu rafet. jërëjëf jërëjëf jërëjëf di leen sant bu baax merci beaucoup